loolee dana bokk ci waxtaan bi nga xam ne danañ ko seq ak sunu gan waaye dana wax lu jëm ci aide alimentaire bi ñeel Covid 19 bi nga xam ne mel na ni tâtonnement da cee xaw am ak loi d'habilitation bi nga xam ne député yi daal dinañ koy accordeel président Macky Sall bokk na ci it li nga xam ni danañ ko waxtaanee honorariat bi nga xam ne dana la jël ñeenti million ci ay CFA toftal ci juróom juróomi téeméeri junni jox ko ki nga xam ne moo jiite conseil économique social environnemental té loolu wa CRD ñoom Abdoul Mbaye ñom Mamoud Lamine Diallo ak ñom Thierno Alassane Sall wax né dañu dem ci Cour suprême fexe ba looloo deñ loolu yi dana bok ci waxtaan wi face à Dakar ci tay mbokk yi muy dal honorable député Farba Ngom honorable député maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Mbaye di nuy Dakar acti personnel Dakar acti yépp di leen gërëm di leen sant di ak téléspectateur ñi ko nara a ñi ko nara lire yépp di nuy ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp fàttewuma kenn. Mhm alors sama première question mi ngi jëm ci Covid 19 bien nga xam ne feebar la mbas la dugg ci àdduna waaye dugg ci Sénégal euh, am ay kilifa yu bare bari may leen di dégg di leen gis ñuy def ay actions sociales est-ce que yow mënoon xam honorable député lan nga def jëmale ko ci askan wi ci ay actions yoo action de bonne volonté la. bon Covid 19 d'abord euh, damay dellu di grand président de la république Macky Sall mi nga xam ne moo jiite dogal yi mu daan jël instruire que le ministre de la santé vis-à-vis ci personnel de la santé yépp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm wax dëgg yàlla niñ koy gérer bu ñuy wax te yàlla tax personnel de la santé Sénégal yépp war nañu leen dolli njukkal ndax macha allah sigil nañu Sénégal sigil réew mi bu baax a baax a baax di remercier le ministre de la santé Abdoulaye diou Sarr ci coordination ak gestion bu rafet boo xam ne ne. def na ko ci mbas mi di jaale ñi nga xam ne ne yàlla dafa dogal mbas mi jàppoon leen euh, ñu jaare foofu noonu ah, wàññeeku ñu ngi jaale seen mbokk yëpp di jaale seen famille yëpp di jaale seen am di jàmm yëpp yàlla na leen yàlla xaar ci àjjana yi gën a kawe euh, wax dëgg yàlla mbas mi mbir la moo xam ne ne képp ku yàlla abal teraanga mm-hmm. nga mën dara sa loxo jot sa ginnaaw loo mën a jàppale askan bi soxla nañ ko ndax économie wax dëgg yàlla loolu du état du mbir la boo xam ne dafa jógee si benn doomu aadama yàllaa ko wàcce kenn mënu ci dara te tamit bu ñuy xool te yàlla tax réew yi ëpp doole foof Sénégal foof jaaxal na leen te ñun nag yàlla dogal na suñu ñaanu kilifa diine yi Si nous, avons ñu des nous nous personnel de la santé ñu nous maîtriser cas positifs, nous avons au moins 90, 95, parfois 100 et quelques guéris donc loolu nous avons des personnel de la santé nous les fait la bu département personnel de la santé mais li nga xam ne maa ko def ci mbas mi wax dëgg yàlla bëgguma toog di lim ne ne lii def naa ko ndax euh, ci suñuy aada ci suñuy culture euh, aada wuñu nga def dara ci lu baax toog di ko waxtaane loolu yaakaar naa ñi nga xam ne ne ñoom laa ko sëkkal xëy na saa yu ngeen amee jot wala jotaay waxtaan ak ñoom ngeen laa leen mais man xëy na li président def mën naa ko wax mën naa ci wax tamit mais man li ma def loolu nekk na loo xam ne ne dinaa ci xaw a maandu trop. justement li président def mooy aide alimentaire bi koppar yu bari yooyu mu génne wax jën ceeb wax jën diwlin te jamono jii may wax yow ba léegi am na ñoo xam ne honorable am na nga xam ne jotaguñu seen ceeb. jotaguñu seen macaroni mais monsieur Mbaye xam nga Sénégal réew la boo xam ne ne macha allah bëgg nañu ñaar bëgg nañu ñu def lu baax benn président. ci initiative boppam ginnaaw yàlla ak yonante bi initiative boppam mu jël engagement ne man mii président de la Macky mbas mi li mu xew nii quelque soit bonne volonté yu ñu appuyer ci mbas mi ci li nga xam ne ne man ma am maa seul maay seule personne bi am prérogative di jël yooyu dogal naa jël engagement génne 69 milliards waxuma yëpp mais 69 milliards mu dem ci aide alimentaire pour lan la loolu pour ñi nga xam ne ne dañoo bokk ci Sénégal bokk ci askan bi daawuñu leen fàttaliku ci yeneen nguur yi fii daan nekk moom mu xalaat ne ne wax dëgg yàlla euh, am na ñu yàlla abal teranga mais am na ñoo xam ne ci Sénégal la ñu bokk seen loxo jotul seen ginnaaw dañu leen war a bàyyi xel loolu waral mu mu réfléchir 69 milliards ci loolu sax da nga gis wax dëgg yàlla koo xam ne ne sax am na tuuti mën man mais am na ci am na ci c'est-à-dire que bourse familiale ñi ko daan am moy ño xamne ne ñi ñii seen sen jotul seen ginaaw ñi nga xamne ne erreni yenin bi nak lolu yenen compétence des maires mhm. ak commandement territorial bi ño tok choisir ni ñi war nañu am ñi war nañu am mhm. ñepp am bëgg nañu dabo nit ñi am mhm. bëgg nañ mu leer te bëgg nañ mu gaaw ay gaawul munul gaaw parce que xam nga la lutax mënul munul gaaw li ci président jël comme dogal dugal ci lolu munul gaaw ministre Mansour Faye moo yor mbir mi yor compétence jiite boobu département bi ko yàlla di dogal président Macky Sall jiital ko boobu département ken xaaru woon Quand on kon nag c'était pas pour que ay calcul la loolu pour nit ñi xam koko. Mansour Faye aussi yaakaar na, buñ bu ñu du toll ni d'en ko ko mu dans son département Sénégal yi di xaar amna na ñoo xam ne ne bi ñuy doog a tàmbali génn nañu seen wax ak sen mbir bëgg xajamal mais suñ borom dafa juste dafa fekkon ci njëlbeen ci déclaration président ne bu ñu dem bu ñu demee bay séddale dund bi dina génné ñi nga xamné ne ne ñii armée nationale ak gendarmerie assister mbir mi pour contrôler ko mu gëna a l'armée nationale ak gendarmerie nationale nation bi ko bokk mhm. ils sont là pour le peuple bien sûr ñoom amuñu par parlo fi lañ nekk xamuñu yoy sax mhm. dañ leen koo jàngalewul formé wuñ leen ci loolu xamuñu loolu suñ leen ci boolee soo gisee mu yéex même bu ñu jolee homme d'affaires jël mbir mi do jox ko ko benn marché yow lii nga war a produire ci ay produits. Mhm. su jëndee ba pare teg yépp ala kulli alin doo jël rek gaare camion rek charge déedéet ñi nga xam dañu bokk ci département Mansour Faye di CSA dañu ñëw contrôler mhm. mais ànd ak la gendarmerie ak l'armée suñu paree camion bi ci boppam encore gendarmerie moo ko escorte fii jëlee ko fii yóbbu ko ba fu mu de fu muy wàcc su egsee foofu duñ ko wàccee te gendarmerie armée nationale taxawul taxaw ñu wàcce ko suñ ko wàccee ñoom ñooy toog superviser loolu ba nga xam ne dara du ci génn te amuñu kayit bu leer mooy commandement territorial mooy gouverneur préfet sous préfet waxtaanuñu ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a sëkk les maires les chef de village ak les commission communaux yi nga xam ne ne dañu commission communale yi ñu dajale leen ñu doog a génne kon nag mbir mi comme lu noonu lañ ko doxalee dafa war a leer te tamit dañ koo commencé ci ay régions yu gën a sori mooy département régions yi périphériques mhm. ay sor ay Kolda ay Sédhiou ay maatam ay Tamba mooy yu gën a sori mhm. mu nekk quelque chose lu raisonnable foofu la ñu njëkkee pour joxe parce que xamoon nañ ne ñu ngi dugg ci nawet bi mhm. loolu il faut askan bi xam ne ne munul gaawee noonu bëgg nañu mu bari bëgg nañ mu jaar yoon bëgg nañ mu leer. te dañu ñaari saaku ceeb la taxu ko bari moom. waaye mais bu ne taxu koo bari ci benn ci benn famille laa la wax. Mhm. benn famille ñaari saaku ceeb. Mhm. te tamit bul yem rek si ñaari saaku ceeb monsieur Mbaye. Mhm. am na ñaari saaku ceeb. am na fukki litre. diwlin am na fukki kilo suukar. am na dix kilos vermicelle. am na carton saabu loolu ah ku leen ko xeebal rek mooy da ciy tolluwul. kon daal jàpp nga ni baax na déjà. waaw loolu baax la donc wax dëgg yàlla. Mhm. te Mansour Faye déjà l'expérience est là moom la moom la président ñëwee jiite réew mi falu nekk président de la république dafa bokk ci ay programme comme il a fait le tour du Sénégal xam né ne y' a quand même des familles ñi nga xamné ne seen loxo jotul seen ginnaaw. 300000 familles ñu séddale leen ay bourses jamono bi mu ko fi njëkkee déclaré di ko xalaat am na ñu toogoon ne lii du dem nañ ko laaj ñi nga xam délégué général. Mhm. à l'époque ministre délégué général. yor bobu situation coordonné ko am expérience ci walu état ba yalla mu dans ce département là encore président jëlaat la mirmi ku foofu ku ku mënoon ci département bi rek yow lañuy ñuy dënk bobu boobu mbir kon yow suma déggé sa wax malgré ni mu yéxé malgré ñi dem nan aw bon ñi nan ceeb bi ñëw na waaye du lu ñu des na Mansour fay échoué wul mom ci affaire bi mais buy ma pour nga c'est-à-dire que bu dul opposition nga xamné dañuy dem diko politiser xam nga président Macky Sall mhm. lim ci def monsieur Mbaye mënon nako doxalé doxalee il est président de la République mhm. mais il appartient à un parti mhm. il appartient à une coalition en 2012 il appartient à une coalition Benno Bokoyakar, yakar des présidentielles de séddale il n'y a pas de couleur politique. ok ça c'était nickel Bonne couleur politique les ci du tout. D'accord. et il a dit instruction il me dit, il chaque commune quelle que soit la personne soit un en un maire d'opposant un maire au pouvoir je waxte dit, tax. xam nga man opposé mhm. parce que opposant là avant Macky Sall di bien sûr mais dans moment, défendre leur xam ne cohérent mais ce qu'on wax c'est pas cohérent parce que nous, ne sommes pas nous wax nit mën opposant mais wax dëgg yàlla bu dëgg jotee da nga koy wax li nga xam président de am ginnaaw prorogatif di joxe instruction mu quel que soit il est président la bu le président du Sénégal le plus jité mais il est dans une coalition il est dans un parti mais gisoo ci séddale bi nanguwu ci les couleurs politiques il dit il est président de la République du Sénégal Mansour Faye ministre de la République moko jox ay instruction bolé ci armée nationale ak gendarmerie nañ ko yóbbu ci gox goxaat bolé ci les maires en même temps des chefs de village ou des délégués de quartier. ça a mmh. été bien distribué et j'en suis témoin je suis maire fi ma nekk. D'accord. j'étais bien associé. peut être pour dire une question bobu président Macky Sall ci tambali bi gis nañu moo opposition bi waxtaan ak ñom xol nan la songé Covid 19 ñëpp le ko mais bu mu demee bay de ceeb bi nak est ce que jor woon mu woowaat leen. ni leen non cest à dire que consultation. vous comprenez, comprendre Mhm. ça c'était démarrage de Sénégal mu commence discuter avec les gens. c'était pour amener idée échanger montrer esprit de grandeur en tant que chef de l'État président de la République mhm. Major yor San di dogal chef de l'État war dogal ci biir mais avant d'être chef de l'État doomu loolu c'est un esprit d'ouverture mhm. et ñom ñi ñëw foofu noonu ñi bok ci mom pouvoir bi ak ñi nek dans l'opposition xam na ne c'est le seule personne ginaaw yalla mi am prérogative di jël yoy dogal mom la Sénégalais fal mhm. mais il l'a fait parce que avec intelligence ak woné bopam nitu jamm la nit bu yalla may xel la nit ko xam da fay woote ne mom Sénégal ben la même su amé ay parparlo politique bu Sénégal waree jël des dafa am ñu nous ko bokkal mu ak ça a été bien apprécié par toute l'opinion. d'accord pas amul contradiction Vous, député députés, li ngeen def France ay milliers de morts Espagne ay milliers de morts taxul kenn voté loi d'habilitation jox ko président. Vous, Sénégal ay 6 morts rek ay vous faites la loi d'habilitation jox le pouvoir yëpp mon président Macky est-ce que loolu demu leen ba un instant vous réccu ko non non non loi d'habilitation si vous ko dem renouveler demain sûrement la majorité absolue bi nga xamné à l'Assemblée nationale président de la République yor ko ko ko dit, def vous dañ koy def. Vous a pas ñun ñoo ñoo rek oui ñom ñoo ñun ñoo parce que ñoo que politique mbolo la. vous mhm. mbolo du que yor avez dit mën bu bis élection avez rek day vous di ndax les journaux ne ment pas mais bu ma lay wax député ça a été une très bonne réflexion coordonnée par notre président du groupe mais avec tous les députés. Cette, loi-là, même des, députés non inscrits, nous sommes Parce que nous avons réunis d'abord avant, avant l'arène politique. Si Nous avons pas par par politique. Macky Sall a montré un bon exemple. Dire que 69 milliards, c'est tout le Sénégal. Ce c'est que nous avons ça devient une couleur politique. Il n'a pas appelé Maki 2012 de devenir couleur politique. wa aper Alliance pour la République, nous devenir couleur politique. Wououl, la grande majorité présidentielle, certains leaders d'opinion, la société civile, les syndicats, le secteur privé, d'opposition, pour nous partager Donc, on a dit que les députés, nous avons fait le commencement, nous avons réussite total motax bi loi d'habilitation bi ñëwé pas que dañoo fermer les yeux dañu xam na ne njëriñ askan bi la woon motax mu mëna a jël yenen dogal pour gestu askan bi et il l'a fait amna yenen yeneen décision tey boo amuloon loi d'habilitation il faut aller à l'assemblée il faut faire euh, euh, euh, mbir la boo xam ne mën na indi vote yi bari togaay bu bari jaxaso bu bari té mbass mi nanguwul loolu mhm. loolu pour yombalal ko liggéey bi dañ ko wolu ñun dañ ko fal duñ ko faq falu impossible dañ ko fal ñu xam ne ni askan bi la gën a jiital que lu yàlla bind ci aduna moo waral mu te wane na ko ci ay jë ay doxalinam loolu il faut Sénégal yi xam nañ ko. d' accord may fàttali ñu ngi recevoir honorable député Farba Ngom euh, ci face à Dakar Actu beneen coow jotu juddu mu yéem aduna mooy li nga xam ne président Macky Sall génn ko ci ab décret muy décret honorariat bi nga xam ne ñeenti millions yu toftal juróomi téeméeri junni lan wax ne dañ koy jox du conseil économique social environnemental li le CRD du congrès euh, la renaissance démocratique. Abdoul ancien premier ministre du Sénégal. Alassane Sall ancien ministre de la République du président Macky Sall aussi. c'est trop grave Et aussi Mamadou Lamine Diallo. Nous ay kilifa nous, ay des ay politique Abdoul ancien premier ministre du Sénégal quand même. président kan moo ko def ancien premier ministre xam nga Abdoul Mbaye am na loo xam ne dafa war a xoolaat boppam nit doo dem ba am 60 ans et quelques ci wàllu at ngay dugg ci arène politique bu doon wàll ci wàllu njàng école il est en classe de CI d' abord maa la ko wax. ah bon bu leet bu dee ci wàllu njàngum école Abdoul Mbaye est en classe de CI Abdoul Mbaye en classe de CI. Hmm. man mi nga xam ne nii moom ma mag foofu bu ñu doon xool tey ci wàllu njàngum école bu ñëwee ma jox ko ay cours. jëm ci politique. lool. c'est pas son arène li muy def c'est wane na d'abord en tant que ku jiitee parti président Macky Sall moom la yàlla fal mu président de la république bi Macky Sall di ut où mi fan la ko on était là à à côté du président Macky Sall. ay compétences am moo mu woo non c'est pas ses compétences Abdoul Mbaye ses compétences il était dans des banques ne le montage financier yi était fait. def ak affaire Uchine Abré ak on le connaît le Sénégalais connaît. C'est un homme d'affaires. Dans le, dans le milieu des affaires, mais il n'est pas fait pour la politique. Il y a des hommes d'affaires. Nous sont des hommes d'affaires, amener une double casquette, sont des hommes d'affaires en même temps, des hommes politiques. Mais ce n'est pas Abdoul Mbaye, du tout. Ce n'est pas son genre, Abdoul Mbaye, de homme politique. 60 ans et quelques. Je sais le nous 60 ans et quelques. Quand je suis 120 ans, venu au Sénégal, amul. Mhm. ngay dugg ci arène politique looloo tax ma ne ko tey bu doon ci classe école bu doon ci tey ci wàllum njàngum école il est en classe de CI ça je le dis Thierno Alassane Sall Macky Sall ko dugal classe CI CI ma ne la en politique ñoom ñëpp CI daal non déedéet hmm. Abdoul Mbaye moo toll ci classe CI ma ne la Abdoul Mbaye moo toll ci classe CI budon doon ci njàngum école CI la toll. Mhm. mais Thierno Alassane Sall mak Sall ko duggal CI au au moins on peut lui bu waxta yalla tax il faut être cohérent mhm. na yobou niveau tout tuuti quand on dit la vérité mun na classe c Tu ci le politique mak Sall ko duggal politique jiital ko cadre cadre APR cadre APR la wax la ko jiital loolu laa la wax. Mhm. ñu fallu nek président bolé ko ci gouvernement voir ko ci gouvernement jox ko DG ARTP ça veut dire qu'il y a les compétences qui restent c'est pas d'autre chose te Thierno alsan aussi xam nga waxon na gën nañ ko dégg mu wax ma ngi waxat ba ma déggaat ko mu wax rek waaw on verra wa d'accord légui ñom yow mom Mamadou Lamine Diallo mhm. xam nga ñing ma fi wax né attaqué nañu décret bi président c'est trop c'est honteux lutax xam nga lutax c'est honteux monsieur Mbaye il peut pas dire que ñom ce sont des intellectuels amna ñu parti politique ñom vous faites ne Macky décret vous mu signé bu ancien ministre bu que dina un million ancien premier ministre dina am millions ils ne les attaqueront jamais mhm. Nous devons am xol ils ont des mauvais cœurs waxuma l'aime parce que damay wax mais sénégalais yi xam nañ ko Macky Sall li ni wax ci Macky Sall la ko labal Mamadou Lamine Diallo mom xam nga mom ay mbiram la euh, rek di limi taxaw parfois di di di di di wax mom mi de da ngay xamné ne défendre amu ci élection présidentielle jallana mhm. sénégalais yi au premier tour mom la yalla dogal mu yor di signer ay décret décret c'est la seule personne à habiter à signer des décrets dans ce pays. d'accord mais mën peut signer décret décrets, nag ay sénégalais na ñoom mën des wax décret oui ma Macky Sall mhm. xam état. Macky Sall xam l'État, état du gan état un cheveu riche ministère de l'intérieur tu peux donner des cours quand même dans un pays parce que y a de l'expérience. Mhm. un premier ministre mën nga donner ay cours ou ne boo bureau de consultance nga am nga am

dañu amul yoon ñu bëgg créer yoon boo xam ne ne. kon yow en résumé daal ànd nga lool ci. parce que ànduma de. manam ci honoraire dama xam ne ne moom la yàlla dogal dama ànd man kenn du ma wax ne ndax ànd naa ak Macky Sall li Macky Sall def man damay gumbu man. d'accord ndax moom laa àndal. benn waaye toog naa ak moom mu naan ma député à l'Assemblée nationale député du peuple ma ne ko waaw waaw mais boole ci Macky Sall mu ne ah c'est le peuple ma ne ko oui xam nga lu tax sénégalais pour ñu dem dans les urnes votel ma en tant que député.

moo investir am confiance que ne kii bu ma siège à l'Assemblée nationale dinaa défendre ses idées ma taxaw te tamit en politique monsieur Mbaye am le loo c'est pas cohérent un engagement mënul ànd ak liberté gëm ma man nit mënoo xam nga politique c'est pas c'est pas ben côté c'est comme l'armée la différence que l'armée c'est des ordres y a que wax mais politique du ordre mais bu amé bu amé deugentat deugentat engagement munoo am liberté wax lu neex def lu neex man lolu d'accord ma ci. d'accord mo waral nak président mi am pouvoir di signer décret bu ñu toogee di attaquer son décret té amul fenn fuñ ko wék lu dul yéene wuñ kuñ ko defal wala mom mi ko def ndam bim ci am yéene wuñ ko ko c'est pas cohérent et nee la Abdoul Mbaye taxaw sa yu yëkkatee kàddu soo gisee du mosu siège à l'Assemblée nationale. lu mais il a montré il a préféré sa liste il a eu que onze mille voix. 11 000 voix à am. Il vient dans ma commune à Agnam. J'ai 16 000, 17 000 inscrits. Chaque période électorale, législative, référendum, présidentiel, j'ai dans ma commune plus de 11 000 voix. Dans ma commune, Abdoulaye, tout le Sénégal, 11 000 voix. Il n'a qu'à se taire. Je dis, quand on est en... bu fekkee ne ko école classe il n'a qu'à se taire il a montré qu'il est nulard, qu'il n'est pas compétent. Président, c'est une chance pour Macky Sall. Il a très tôt compris que cette personne-là n'est pas loyale. Madame Bimke Tan, kon, xeyna choix bi ñu wax on rap on a Non non, xam nga lu tax tan bi xam nga lan la woon monsieur ah, Mbaye. Ah, xawna graw li nga wax ni dafa melni tan bi hein. Xam nga lu tax hmm. daf ko tan tek ci mom confiance xalaat na ni kii bu ko jëlee teg ko sama wet dinañu liggéey mais ma wax la benn affaire Abdoul Mbaye njëkk bu mu njëkk bi ne ko falee que premier ministre c'est quelque chose qui est très grave et il me répond à ma question je l'interpelle xalaat yi ma pose posé tegal ko président en tant que chef du gouvernement xam les gens qui ne connaissent pas Macky Sall on est seen bopp parce que da lay jox lépp jox la capacité d'écoute de le déglu bàyyi la nga dawal boo foogee ne kii xamul wala ni déroulé il n'a pas été intelligent Voilà, xamul Macky Sall moo wax muy moo waral muy SAR société de raffinage du Sénégal mhm première idée bi Abdoul Mbaye njëkk tégal makissal Sall nañ ko dissoudre def ko ay dépôt kim ko naroon jox xamna man xamna kum ko naroon jox mo xamna kim ko naroon c'est des hein oui président a résisté pour dire que première décision bi may njëkk djel en tant que chef de l'État c'est pas dissoudre des sociétés nationales bi nga xam Sénégal ko mom kon Abdoul Mbaye dafa bëggoon dissoudre SAR il a proposé ba bind lettre lima lay wax noonu c'est pas une proposition orale il y a des écrits ku ko bëggoon jox. déedéet loolu duma ci egg. Mhm. waaw moom laay waxal rek moom mii di wax rek. nga xam ne dafa dem ba te bu mu fàtte boppam jour bi mu ñu fekkee secrétaire exécutif kaddu yu mu fa yëkkati moom moom moom laa wax. waaw waaw. maa ngi maa ngi xaar mu waxaat. boobu booba laay génne boobu boobu nag. waaye teewul xam nga doo jël say cartouche ko. ko benn waaw waaw waaye teewul comme yàlla moom mooy dogal. mais xëy na comme ni muy doxee ci wàllum politique bi di raam. bis man lay raamee Abdoul Mbaye na ba teeral de. bis bis na raam na ba teeral. mënut a nekk président. non c'est waxuma mën xam nga loolu yàllaa ko yor. mais Amna na ay doxalin. ça parle en politique. d'accord je te donne l'exemple de Macky il était opposant mais ce jour du congrès qu'il a organisé à Diamalaye le parti pouvoir yëngatu woon à l'époque et képp ku nekkoon fii ngay ut réew mi boo tëddoo nelaw boo doo tëddee doo nelaw wala boo nelawee doo xandoor xandoor c'est clair parce qu'ils ont compris que lii mu ngi pouvoir d'accord Sans rien ngi euh, président Macky Sall moom lu mu dogal rek Petit bradage littoral bi si nga de temps. non ils n'ont pas compris l'esprit du président. Ah. Macky Sall musul ànd nañu jël il y a certains coins ci pouvoir am bu dogal ndax réew mi la gën a jiital la gën a jiital réew encore il y a yenen fi joxe yoo xam ne ci wàllu suuf dañ ko joxe bien avant qu'il soit président de la république il faut nit ñi xam loolu sénégalais yi bëri xamuñu lu ñuy wax dañuy wax noonu rek xamuñu lu ñuy wax hmm. am na yeneen coin ci wàllu littoral bi biñ koy toog di ko joxe Macky Sall ci pouvoir nekkagul président parce que bu ñu xoolee les baux c'est bien fait avant 2012 Amna yenen yeneen terrain yoo xam dañ ko joxe bien avant 2012 dañ ñoo ko mais régime bi fi nekkoon kan moo ko dul jaaxal ku dul régime bi fi nekkoon. mais munu ko nangu mënu ko foqati. non nangu ko mooy lan xam nga état aussi dafa am droit te continuité la du doo dee ne diw moo nekkoon président rek jóge na fii ñëw naa fii man maay opposant laa laa woon lim fi tegoon ci wàllu euh, euh, en tant que état yëpp nga ñëw nga naan dama koy lem sànni teg ko fale loolu du état li ci war a baax mën nga ko bàyyi te tamit booba da ngay jàmbaarloo askan bi. loolu xam ngeen ne li Ablaye dafa def fi yéen tamit ci walu souf senegal xam nako ko. Mhm. li fi nekkoon ci walu souf xam nañ ko. néew aussi bi régime bi bi mu ñëwee ba tey amuñu ay souf mais souf bi pour pour fan la pour fan la. Ah, pour senegal la waaw ñu ñu ko jox ce sont des quoi sont des Sénégalais. Mhm. faut qu'on soit honnête. amna lo xamne ñom dañuy taxaw di dénoncer wax lo xamne ne. ne sax noo jàngate mbirum wax waxu bi limu mu li bind noonu. non xam nga ma jambal

c'était pas un discours bo xamné ne waron nako wax ma jambal ki un ami mais je dis haut et fort discours boobu du discours bo xamné mom waron nako wax. non trop xam nga lutax mu ma. parce que man xawma ci walu anga euh, relation dem delu dem dal delu marche arrière auto la ci xam wala saret mais doomu adam man suma ma rek dem na, du dem delu ci loolu la xam ci ci wandu and quoi. fekkee dañuy ànd yàlla boole ñu même su fekkee ne am na ay décision yoo xam ne jël naa ko te waruma ko jël boo ko amee comme xalaat jaaral fi nga war a jaar ba egsi ci man nga wax ko nga wax ma ko te am na ci ay yoo xam ne ne nag bëgguñ ko wax ndax moom suma xarit la am yenn yoo xam ne bëgguma ko jël wax ci moom d'accord teewul teewul bu fekkee da nga nekk nguur ñu dénk la ko askan wi am yaakaar ci yow boo fi fekkee ay erreur war nga ko mën a corriger mais il l'a fait Sonko moom sàkku na nu corriger ba sax def na ay menaces parce que Ousmane Sonko li mu wax mooy. je vais te dire une chose. oui Ousmane Sonko mooy kan. mooy ki nga xam ne élection yi passé xaw na yëngal tuuti. comme quoi xaw na leen tiital tuuti comme quoi tiital kan. ah mais bu amoon tuuti soutien. mais ki ñu waroon tiital tiitaluñu mooy Idrissa Seck tiitaluñu keneen ku dul Ousmane Sonko moo ñu tiital Ousmane Sonko je parle aux Sénégalais nañ ma déglu bu baax li may wax. pas que je suis au pouvoir Ousmane Sonko di nekk opposition koo xam ne dafay jël ay kaddu ne Sénégal Rio wax la à chaque moment de jël ay kàddu génne def samay déclaration son su duggaatee ci biir mu naan gëm ma ci dara. ah bon ah oui est-ce que coco jar naa xalaat di dénk et tamit bu ñuy dénk il faut voir les pays réew yi nga xam ne ne jël nañu seen réew dénk ko koo xam amul expérience yan dogal lay jël Ousmane Sonko ban service le mës a jiite ci Sénégal jiite na ay syndicat bi nekk impôt domaine. Mhm. té li bobo lan mo fa nekkoon liggéeyam lijjanti ay terrain di jaay mais bu wax lolou té noppiwuñu Ousmane Sonko qui n'a jamais été un chef de service je dis chef de service je dis waxuma la bay jité centre waxuma la bay nek un il est il a son diplôme il a fait l'ENAM. et c'est le plus important. c'est non mhm. expérience euh, euh, le plus important c'est l'expérience njàng mi am solo trop. ndax boo jàngul doo mun yenn yi loolu xam nañ ko ñun jànguñu mais xam on reconnaît que ñii jàng moom am na lu leen yàlla abal mais ñun tamit ñun ñii jànguñu xam nañu am na lu ñu yàlla abal mais nag expérience dafa am solo ci wàllu àdduna en commençant par yow par man ak keneen lu ñu la dënk boo ci amoon xel am ci expérience ci nga nga koy mun a dawal lu am solo Sénégal maa ngi wax ak yéen Macky Sall di président de la République moom la yàlla dogal mu jiite fii mandat moom la yàlla dogal Sénégal fal ko fal bu rafet légitimité bu bu normal cinquante sept virgule ou cinquante huit pour cent mais da ngeen di bàyyi seen xel ci kenn ki ngeen di xalaat di ko jiiteel jiital réew parce que il faut ngeen xam ne ne jiite réew du mbirum caaxaan balaa ngeen koy rëcc seetaat leen bu baax a baax a baax a baax a baax jaar-jaar doomu aadama fu mu jaar lu mu xam loolu am na solo trop boo ba xalaat nga nga xalaat boo koy jiite réew nga teg ko ci charte yooyu kii am na xam-xam kii am na jaar-jaar kii am na expérience kii déclaration am yenu na maanaa kii nga xam ne dafay taxaw di ne man danaa def samay déclaration Sénégal réew wax la mais su ma delloo toog fële nga naan man li may wax jëm ma ci dara mais Sénégal moo mel noonu il nga ba bari wax moo waral saa yu Macky Sall defee déclaration déclaration bi nga xam ne moom la Sénégal yi di président fait une déclaration la nation le lendemain il a fait une déclaration. Wow, sénégalais non on peut être sénégalais mais mm-hmm. y dafa dogal déclaration ci la nation c'est le chef de l'État au nom de quoi Ousmane Sonko ça. le président fait une déclaration le lendemain il a fait une déclaration xam nga bari wax

ndax ne wax ah, nit mbiram ah. Mhm. Ah, de toute façon. Euh, été très moy lan sénégalais ont été très indisciplinés. mais li été honorable nak dafa été ah <laughs> dafa xam nga indi. ah waaw. xam nga dogal très hmm. mais on fum koy tek wax ju très té wax ju amul très bu dal mais ça le président fait déclaration pour nation le lendemain nga naan délicat, est-ce que est-ce que Les sénégalais sont très indisciplinés Que daf ko wara balou sénégalais daf sénégalais c'est-à-dire dafa kilifa kilifa kilifa ñi bi musulman ak sénégalais la wax mais sénégalais kan képp ne sénégalais sont très indisciplinés. xam nga sénégalais yi sénégalais yi xam nañ ne dafa juum ci kàddu. waxuma juumul de. waaw man néew ma la juumul. waaw mën naa am da koo tey moo xam parce que koo xam ne ne à chaque fois dafay créer di wax benn wax pour créer buzz loolu mbir la boo xam ne ne du waxum xel du waxum xel def ko wax parce que dafa bari lu muy wax li muy wax dafay bari dafay dem ba waxam yu mel nii lii mooy asaka bari bari wax. d'accord li tax mu daal ko ko asaka bari wax loolu la. d' accord mbokk yi ba léegi face à Dakar ci ñu ngi ànd ak honorable député Farba Ngom euh, nu àddu jëmale ci li nga xam ni moo xew ci nguur gii muy gouvernement président Macky Sall honorable nag am na lu nga xam ne ñu ngi koy déggandeem di wax ne président Macky Sall mer na lool parce que ci biir gouvernement bi am na ñu nga xam ne li muy xaar ci ñoom defuñ ko. est ce que ah. mer gi mer gi dëgg la wala. dëgg rek mer bi moom mënu la wax mer bi dëgg la wala du dëgg ndax mbirum état du lépp la ñuy def. comme Ousmane Sonko kaase ko ci biti adduna du noonu état dafa am lu ñuy wax ci biir am lu ñuy wax ci biti hmm. mer na walla merul loolu mën mënu moo ko wax mais xam naa ne lenn hmm. bari na ci biir gouvernement bi ak biir régime bi ñoo xam ne ay muusi guddi lañu muusi guddi muusu guddi lan mooy guddi muusu guddi xam nga guddi muus bu ñuul bi ak muus bu weex bi kenn mënu koo ràññee hmm. muus bu weex bi day daal bu dee ci dem day daal di nuru ak bu ak ak bu ñuul bu bu ñuul bi ñuulaale benn yoon bari na ci bari na ci régime bi muus mhm. bu ñuul ak muus bu weex te loolu nag dafa war a tirer ay conséquences moo yor responsabilité di ko dënk mhm. def ci am ñoo xam ne ne dañoo nekk si biir di liggéey mais amuñu engagement te tamit euh, monsieur Mbaye nañu wax te yàlla tax am na ñi am engagement nag lool ci biir gouvernement bi am na ñi am engagement lool ci biir régime bi mënu ma wax ñëpp parce que su ma ko waxee damay wax ne loo xam ne amul mais am na ñoo xam ne nag ñu ngi ci biir ci biiri biir la ñu nekk au cœur du système mais ils n'ont d'engagement loolu mooy muusu guddi muusu guddi mooy bu weex bi munoo koo xàmmee bu ñuul bi munoo koo xàmmee muus rek ngay gis muy dem loolu nag mhm. na xool ñi weex yi jël leen ñuul ñii man daal bu ma demee ba toll fenn euh, monsieur mbay ci wàllu euh, état ma nekk membre de gouvernement wala diriger direction générale te aw ma te aw ma engagement ñett dinaa ko def wala ba ñeent bu ma jàngoon école nag toog boobu yàlla da jàppale na ma jànguma école mais man man xam nga kan laa kan laa ñee ku am mhm. engagement doxal d'accord su ma amul engagement ci ay mbir bu ma bokkoo ci ay yëf ñaar dinaa ko def ba ñett damay delloo kat-kat bi ndax baa neex la mhm. dinaa delloo carte carburant yi baa neex la dinaa bureau bureau yi neex yi yëg ci ak assenseur dinaa ko delloo mhm. toog jàpp si yàlla xaar yàlla mais mënoo nekk ci biir dawal 4 4 yi jël bi euh, billet d'avion di dugg business class ah hein, do fay carburant do fay courant do fay ndox loolu charte réew mi moo ko ko permettre nga ñu jox la euh, euh, maison de fonction bu rafet foo ñëw ñu lay tàllal booy dem fenn garde corps la teel sa saak foo romb agent yi mooy mooy les hommes de tenue nga xam ne ni ñoom ce sont des républicains. Mm-hmm. ñu toojal la nga naan lii lépp bëgg naa ci bokk ba pare amoo engagement 5 pour d'accord. waaw d' accord lan mooy engagement laa bëgg xam parce que. l'engagement ngay xaar engagement ci régime da nga koy défendre loolu la xam ci engagement. régime boo ci bokkee da nga koy défendre Macky Sall lay nekk président de la république mais am na ñoo xam ne tey ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ciy nguuru bu ñuy wax te yàlla tax lu tax ñoom tamit du jël seen engagement di défendre et encore mieux monsieur Mbaye nous en sommes très fiers.

yalla mayat ko aussi mu toga ci kanamu rewmi mu nekkaat chef de l'état am 58 dit rew ñu gis wax deug yalla Macky Sall wax deug yalla ñun ñi andon ak mom campagne wax ak sénégalais yi kenn le régime est bien encadré le résultat est tellement positif ci fann yëpp yëpp yëpp fann yëpp hmm. donc ci walu système aussi ñi dang nga leen di fal parce que am nañu mbooloo ni dañ leen di fal parce que même buñu ñu amul mbooloo mën nañu défendre Il y a des gens qui savent très bien communiquer qui savent parler bo xolé seen ginaaw yoruñu sax fukki nit ci walu mbolo politique mais ils sont utiles en politique Il y a des gens même buñu amul mbolo même buñu mënul communiquer hein, dañu bari influence bari ay pexe nous da di am na loo xam ne président mun dem na ba mu am na fu muy toll munul doxal boppam am na day toll fenn munul doxal boppam yow mii yaa koy doxal loolu nag chef de l'etat. soxla na lépp soxla na kii communiquer même bu amul mbooloo politique mhm. soxla na kii am mbooloo soxla na kii amul mbooloo am am amul amul politique ah, munul communiquer mais bari na pexe soxla na koo xam ne kii dafa am relation ñépp la soxla soxla na ci kilifa diine yi koo xam ne kii daf koy ñaanal soxla na ci c'est-à-dire fànn yëpp le chef de l'État soxla looloo tax gouvernement ngay ngay ngay nga koy def suppu kànje ñi nekk ay ay ay juriste ñi nekk ay ingénieur soxla nga fànn yëpp pour ñu mën la assister ci liggéey bi la Sénégalais yi jox. waaw d' accord xam nga sànq yaa ngi wax honorable yaa ngi wax wax ju leer ni président Macky Sall wala boog nga ni sax Sonko wax ju bari ji moo tax mu def ay erreur nga ni président Macky Sall soxlul kuy wax ju bari mais nag non pas wax lu bari mais on a besoin des gens qui défendent un régime. mais régime dañ koy défendre nan la ministre nekkee ci ab portefeuille di liggéey yore ay charge bare bëgg ko boole kiy wax. mais quand même ministre mooy lan fonction politique la monsieur Mbaye fonction politique la quand on parle. am na ñoo xam ne tey opposition dañuy jël seen attaque jëmale ko seen département doo gis ñuy ŋàng te ñu ngi ci nguuru seen département bi nga xam ne yàlla dafa dogal chef de l'état moo nekk président la mais jël département bi jiital na ko suñu jëlee benn wax boo xam ne tout est faux war nga jóg taxaw leeral askan ndax Sénégal Sonko nee na dëkk wax la nee na dafay wax ju bëri taxaw wax mais li muy wax yépp nee na bu demee ci biir nee na gëmu ci dara comme réew wax la wala ci wax la bok rew liggéey la mais ci wax la bok lolou Sonko ko gem hmm. mais Macky Sall dafa gëm ne réew mi rew liggéey la hmm. lolou tax mu koy doxal te ko ci ray bob mais wax deug yalla bo bokke ci régime bokk ci système ministre fonction politique direction générale mën naa un technocrate mais wax deug yalla lolou le président moy jël dogal deunk le par rapport confiance bu muy am ci yow donc lolou waral nak bo bokke ci régime ñuy taxaw xolal tali Sénégal ni ko président defee va en Casamance hmm. Il y a 7 ans, 2012, pont il y a pont il a Sénégal. Il a désenclavé ce pays, M. le président. Il a tout bas. Quand il va aujourd'hui à Matam, c'est 5 heures de temps qu'il y a un Donc, Donc, il y a des gens qui a fait des parfums le matin, au moment qu'on faisait presque 8 heures de temps, mhm. ex-Sénégal motul sax presque deux 5 euh, euh, euh, heures de temps néna tali fi fi Dakar. Mhm. nga jël yoonu Saint-Louis dem département de Podor ba sen bir kër. tali la tali la d'accord. d'accord légui légui légui ñi nga doon wax ni manque d'engagement est-ce que mënoon xam ñan la. xam naa non non non man man duma ma tudd ay tour d'accord à peu près ñaata lañu ci biir gouvernement bi du tudd ay tur du wax ñaata lañu. Mhm. c'est-à-dire que c'est pas seulement dans les ministres mais il y a dans le gouvernement des gens très engagés ñi nga xam pouvoir bi jaral na leen lu nekk ndam bi dañoo jël def ko seen affaire bopp te loolu mooy engagement Macky Sall tey moo jiite réew mi nekk président de la moom la Sénégal yi jiital yeneen prérogative moom la ko yàlla dénk mais bu jëlee département wala bu jëlee gouvernement wala bu jël direction générale wala bu jël yeneen nomination boole la ci au conseil économique social conseil économique social au conseil de collectivité député conseil d'administration bu jëlee yooyu dénk la ko boole la ci parce que dafa am confiance yow donc lii sa rôle lii sa wareef taxaw défendre bobu régime ba Sénégal xamné né té te tam machine Macky Sall mbiram c'est tellement défendable régime la bo xamné ne ne bi ko les indee fii teg ko fi ci kanam réew justice bi xol ngeen yoon bi askan bi éducation agriculture élevage santé famille, yépp c'est positif ñi ngay taxaw ñi taxaw nak di wax c'est des opposants mais c'est pas des opposants cohérents mën nga nekk opposant taxaw mais il y a certaines choses bu ñëwee da nga ngay wax mhm. alors euh, ba léegi ci ci gouvernement bu président Macky Sall dañu gis ne dafa am tuuti jafe-jafe. comme lan waaw mooy moom laay wax ni par exemple ñi nga xam ne euh, ay ministre lañu ba pare nga wax ñu liggéey te waxoo seen tur waxoo it ñan ñan dama xam exactement. lan mooy lan la président di xaar ci mu def remaniement ministère xam nga mbirum remaniement kooku du mbirum far Ngom dëgg la loolu prérogative la boo xam ne président de la Macky Sall moo moo am boobu sancan boobu mënuma ci tontu ndax man euh, damay wax lu ma maîtriser mm-hmm. bëgg ma wax jamais loo xam ne maîtriser wu ma ko wàllu gouvernement aussi nit mën na engagé ou bañ a engagé président Macky Sall ginnaaw yàlla mooy fal mais bu ko ci bu ku ci yàlla boole rek da ci des. ndax mbirum yàlla moo gën a kawee ci loo gis ci àdduna. donc loolu mbirum suñu borom la mais ak président de la république wax dëgg yàlla ah en tout cas daal man xam naa gouvernement direction général régime boo ci bokkee da nga koy défendre surtout ci nag ci régime boo xam ne na wax dëgg yàlla le bilan est tellement positif tous les choses sont là c'est tellement défendable fànn boo ci jël rek mën nga ci jël benn ñaar ñett ñeent juróom. bourse familiale y a des gens ñi nga waxoon ne neewoon nañu lii du musa am mm. impossible trois cent mille famille ñaata milliards la tu vois le le le le euh, euh, munoo ko lim nga gis piment mm-hmm. ah nga gis PIDC carte d'égalité des mu munoo koo lim li président Macky Sall defar fii def fii en place ah bourse yooyu yëpp nag yàlla dogal tey mu am ci résultat boo xam ne ne ndam ndam la boo xam ne kawe na sax njort bu mu ci amoon

en parlant des élections locales ou bien en parlant que mandat jeex wala jeexul xam nga ku mel ne de ragaluma bu ci andé hmm suñ mandat bi jeexoon su ñu doon dem élection néew nous am mais ça ne m'empêche pas de dormir parce que j'ai un bilan là-bas qui m'attend chez moi à Agnam. la commune des Agnam je peux être là faire mon investiture sans battre campagne et laisser jusqu'à la veille des élections je viens voter. ah bon je gagnerai. Hein? oui avec le régime de Macky j'ai un bilan positif mais le président de ma may mais maintenant, naa investiture dans la commune de 16 villages officiels à Amo. je maîtrise ça par cœur et les porteurs de voix Je vais battre campagne s'il y a un maire qui va battre campagne le bilan reste moi mon bilan battra campagne chez moi. et on verra je vais dire aux populations dernier mois Vous avez ma bi may taxaw tey di vous ko woon bu damay taxaw di campagne sournaas dinaa toog def sama investiture Inch'Allah, allah bu ci yàlla ba la veille des élections je viens voter je n'aurai pas moins de quatre-vingts et quelques pourcents. comme je et alors il faut comprendre monsieur Mbaye mhm. des élections on les gagne avant en amont mhm. avant ñu fay egg avant ñu fay egg allez ci kanam rawati gët mais j'ai montré ça au présidentiel mhm. ma campagne Macky Sall moo une une tête de liste bu neex mais est-ce qu'il y a au Sénégal là où il y a un bureau 100 là où j'ai montré des PV dans Acti. à Silla Worgo valablement exprimé nombre de votants temps et ce qui est grave ce qui est grave il y avait des gens qui siégeaient dans d'autres partis d'opposition ça veut dire qu'ils ont voté pour Macky Sall <laughs> D'accord. <laughs> Il y avait des gens qui siégeaient dans l'opposition, mais ils ont voté pour Macky Sall. Non, pas du tout. Non, pas du tout dafa am ñoo xam ne ne comprendre ñu politique du ku ñëw tu la tàccu rek bu bis bu jotee mu la d'accord léegi am lu xew juste dogal bu bees tax bu nga xam ni nguur gi jël na ko ci bu ñu leen bu ngeen dee joxe yéen maire autorisation de construire bu ngeen yéexee nu jël ko jox ko préfet sous préfet mais loolu xam nga am nga xam nga man duma chef de l'état mais xam nañu am na ay maire dañuy jël ko autorisation de construire de ko commercialiser il prend un gars comme Barthélemy Barthélemy Dias Barthélemy Diaz laa wax. waaw waaw Barthélemy waaw. lan la ko Cheikh Abdou Mbacké wax Baara Dolli le député. lu mu ko wax. du dafa ne autorisation de construire di ma signé on autorisation de construire bi nga signé ak bi nga dul signé yoon moo la koy permettre moo la koy guider doo toog di yor pouvoir politique ne lii laay dogal lii du ma neex autorisation de construire droit la comme un sénégalais bi nga xam ne kër ou am bay ou am papier kayitu kër jaar fu mu jaar ba egsi ci yow jaar direction de l'urbanisme jaar direction cadastre jaar direction des domaines nous ñëpp den def avis favorable mu dem ci directeur des domaines def avis favorable doog a ci signé mu doog a dem ci représentant état préfet ou sous-préfet ou gouverneur approuvé la bu ñëwee ci yow nga naan bii signé bii dinaa signé da nga am foo ko mais bu fekkee ay règlement de compte la état jël na ay dogal man de kontaan un ci hmm. règlement de compte qui di war naa a dans même na yow nga boutique alimentation hein bi c'est pas c'est pas mais les maires ce sont les démembrements de l'État mon frère ouais mais d'accord mais nous bok une ci parti xam oui décision bob nag de yalla dans commune démocratie un maire PDS ou hmm. un maire bu ou un citoyen bu rewmi un citoyen bu Ousmane Sonko su vous def demande d'autorisation de construire dans ma commune légalement construire les dossiers que la luy lui demande je l'autorise lu tax loolu parce que c'est son droit et maire aussi da ngay xam ne ne du sa kër bàyyi dëgg la saa yoo remplacer nit da ngay xaar bis dina ñëw ñu dina lay remplacer yow tamit moo tax nga war a doxal yoon mhm. soo remplacer doomu aadama mu am passation service bis boobu bu dellu seen da ngay préparer yow bis bi nga wara delo leng yi. mais boo ko sóoraale wu daal honorable nu wax nu wax point boobu rek nga dugal Barthélémy Diaz kon day melni ni loi boobu Barthélémy tax. déedéet non mané ne. waaw ku mel ni moom c'est un exemple que j'ai donné il n'est pas le seul. amna yenen ah oui. il y a même des maires qui sont avec nous ño xam ne ne autorisation de construire dañ ko yéexal wala duñ ko la yoon. d'accord ça c'est sûr ils sont avec nous mais kooku mom mbiram dafa ëppal on peut pas te donner quand même.

ba mot sëkk dara fanu fanaanul àll te bari naa ci ay morom nak du man rek de. bari naa ci ay morom de. xeyna reconnaissance am li maksal def ak limi ak jëfam wala bañ am mais bari naa ci ay morom nak ño xamne wax deug yalla wàccoo na ak ñom lepp li mu waron def ci walu andlo ci walu relation ci walu xarito ci walu ño bokk yëf yi boole nañ ci xeyna nak nga doylu wala bañ doylu mais man day doylu na ci la maksal defal ndax wax deug yalla wàccoo na ak man. d'accord député à l'Assemblée maa ngi ci sama deuxième mandat. waaw mu boole ma ci membre di secrétaire exécutif campagne présidentielle jot. ah xëy na dafa la na yow li ngi ko defal. campagne président man loolu laa ko defal bari na ci ay morom. Hmm. Macky Sall quand on parle que nit ki amna loyauté ci mom mom mo am loyauté avec ses amis wala ses compagnons ça je le dis il est très loyal en amitié. Hmm. très loyal en amitié maa la wax loolu. ok. Mais là, je parle aux responsables à pair, un parti, ou bien une coalition, ou bien un régime, on a besoin de tout le monde. D'accord. On a besoin de tout le monde. On a besoin des gens de la des gens d'Ibeno, des gens de Maki 2012, la grande majorité présidentielle. Toute personne qui avait participé pour la réélection de, à son excellence Macky Sall, ku abal am ko nañ ko ko esprit d'ouverture Et état non-là. pas ñi ci rek D'accord. D'accord. dernière question ah, dafa femme sénégalais yu am sentiment première dame ni mu fait fait. dafa ce tout dal. non actuellement ni kan mo fess première dame wax la Sans au Sénégal nous wax sans Macky Sall mais sans Sénégal. ah bon première dame mi dawal auto. sans motard il pratique les embouteillages comme ni koy comme ni ma koy pratiquer comme citoyen ordinaire première dame suis l'épouse du chef de l'État Oui amna na prérogative yu ko yalla denk yu ko yalla may. bien sûr. c'est pas son genre. dafa yéeg oto jógee këram fi ko yàlla dogal mu dekk Mermoz di dem kër yaayam sax day bokk embouteillage comme ni nga koy bokkee comme ni ma ciy bokkee comme citoyen ordinaire dugg ci bir ba ex embouteillage bi bu dee vingt minutes la bu dee une heure de temps la té tamit motax mom moom gëmul yenn yi day dem ci garage taxi di len may ay billets mak taal otam dem hôpital te fu amu fi benn soxla dugg ci biir néeg fu malade yi mm, tëdd génnee ay enveloppe jàppale lépp lu muy def yàllaa tax dem dans le banlieue defar la ay douche yi nga xam ne ne dañ koo soxla lépp lu muy def rek yàllaa tax kooku moom yàllaa may Sénégal nji soxna njiitu réew ku mel ni Marème Faye Sall waxuma ko parce que dama bokk ci kujje politique bu président Macky Sall déedéet li ma gis laa wax tey loolu billaay man kenn ak sama bàmmeel moo may seedal mais première dame fi allah melul noonu de première dame moo xam dafa daan jël fii nii dem marché wala ko xam ne daa dame ban première dame nga fi mës gis Sénégal dugg ci ah, ah, embouteillage embouteillage nga jël ay ñu di kin kin kin wax ma kan la <laughs> amul d'accord Premier dame moo xam day wàcc fu garage taxi génné ay billet mak jox leen te yàlla tax ne ñi ci Sénégal lañu bokk dañ leen di faté premier dame mii dem hôpitaux ci biir hôpitaux yi dugg fekk fa ay malade ak ñi nga xamne dañ ko soxla ordonnance sax dañ koy euh, am dañ ci am jafé jafé jappalé leen te yàlla ndax bu paré dem yoonam am na ay maman sax day solo solo bo xam dina ñëw ba def dara ñin ñi sax duñ ko xàmmee kooku xam nga ne gis xol xalaatu ci ngiseel d'accord loolu gëna a tuuti nag ci limi def ci limi def té lepp limi def 95% ou 100% yalla tax mu diko def du mbirum politique sax mm-hmm. lu bëri li ma lay wax ni douche yi day dem ci mën naa dem sama biir koñ mu xam ne ne man Macky Sall taxawal moom nii ma Macky Sall laay yëngatu ci wàllu politique dina fa ñëw defal lu ba pare te du ko yëg parce que su la ci boolee yow mii homme politique wala femme politique nga xam ne ci président nga nga bokk day mel ne politique bi moo tax ko di ko def. d'accord nit la koo xam ne ne. yalla baxal la am yëg ci doomu adama d'accord euh, xalaat ne laa lépp ci natali lay mujj. d'accord dernière question honorable des fois ma dégg ngay attaquer homme politique ba yaangi ngi ñom ñoom bu nuy tonto bu nuy fayu ba yaa koy baye xel. man homme politique la hmm man homme politique la paré nako d'accord man dama ko paré gisoo dañ fi tok ci régime. motul 3 4 mois 5 mois am ku ñew sama kër photo né ma ngi inauguré sama sama kër. yàlla dafa dogal kër gi bi mu koy am Macky Sall falogul bi may am autorisation su continuer Macky Sall falogul bi ma koy tabax Macky Sall falogul fi ma dëkk man mhm. ak leneen ak leneen loolu nag nga xam ne ne euh, man homme politique laa euh, façon façon attaque bu nekk mën naa koo subir et bi bi ma ko décidé di ko def dama taaj samay soxna taaj samay njaboot na ngeen di am xel mhm. tout possible mën nañ maa jéem a jot bañ ma jot ñu jaar ci yéen di doom nag di jabar di mbokk tout est possible mm-hmm. mën ngeen dégg ci man lu ne mais ma ñaan naa yàlla lépp lu luñ may waxal ci lu bon yàlla buñ ma fa fekk loolu moo tax may sàmm yenn ñi di ci bàyyi xel ma xam ne doomu aadama la am na loo xam ne ne war naa koo jomb moom nag looloo tax man ragaluma yooyu attaque ndax yàlla jàppale na ma mm-hmm. euh, ah, wax dëgg yàlla su ma lay wax te yàlla tax Farba Ngom mii mm-hmm. démarrage courtier courtier ay terrain ay kër. ba fi mu egg tay jógee ci dans une famille bo xamné né ci askan bima bok la laa doomu géwél la et j'en suis trop fier. sama papa di wayan kat sama yaay di wayan kat je suis né sur champ. suma ma ci yooyu ba egg si fii ci biir réew mi nga xamné ne ne sant ma war té tamit ma xamal la lenn nak aussi. Euh, nit war nañu respecté ku nekk rek doomu aadama ne war nga ko jox cër war nga ko respecté ndax lépp ci loxo yàlla la ne kenn yoru ko waaw moo waral nag ah euh, wàllu état dénk ñu ma xaalis état bi député assemblée nationale la li ci des nag je dans le millier des affaires di di yëngu say yëngu-yëngu ba bu baax et j'assume looy tàggatoo lu dul gërëm Dakaractu yi personnel yëpp di gërëm aussi site internet yep di giiram télévision yep ndax amna yenen xabar ci yeen rek lañu mëna jaar ba wax ko ko wala ba jotali ko askan bi di gërem sénégalais yi fi né di gërem diaspora bi ah di gërem homme politique yi opposition pouvoir di gërem ñep di gërem aussi président de la république di am fierté bu lool bok ci kujé politique bi nga xamné Macky Sall ko jité bép membre APR membre coalition Benno majorité présidentielle aujourd'hui war nga am fierté bu doy ci njiit njiit bi nga xam ne ne makk Sall pas que yàlla ma booleeg moom mës ngaa dégg Macky Sall wax lu bon nee ma déet musu doo ko dégg saa yoo déggee dana waxtaan discours am ba pare génne ñaari kàddu yi feem yi neex yi cokkaas yi rafet. waaw ah, yéen saa mu cokkaas. mais du wax lu bon <laughs> du co dina cokkaas mais du wax lu bon xamu ko sax. Hmm. xamu ko donc vraiment di ko gërëm di gërëm. encore soxnaam di gërëm gouvernement bi di leen wax ne nañ gën a jàpp te te wax dëgg yàlla mbir mi macha allah bilam bu am solo la ba nga xam ne ne on en est fier ci bokk ci régime bi waaw te wax dëgg yàlla di gërëm président ci tur ñi nga xam ne ne fa la ñu bokk ñun on vient du monde rural. Mhm. toog sa biir kër bu ñu lemal la ñaari saaku càkk ak li ma la fa wax yëpp ñu tegal la ko ñu ngi koy gërëm nag. loolu suko defale askan bobu ñun la ko defal lutax opposition bi buñu taxaw di jël kàddu ko wax duñu salier saluer yoy boobu jëf c'est important il y a des gens qui sont de l'opposition buñu bénéficié nañ ci jël nañ ci dañ ko wara a yalla yàlla gërëme ko Macky Sall nag bu wax ta yalla tax loloy xel loloy and man tay un homme opposant mu waxe lu mu wara wax billahi suma toge ci chaîne dina ne ki wax deug yalla kontaan naa ci ay mbiram comme le cadre du 17 jour bi ñëw président recevoir ko palais da ngay xamné ne ki dafa ñëw ak xol ñëwul rek parce que day day def habillage di kaw day fay habillé que ne war naa ñëw bala bala balaa may perdre opinion bi mais Idriss dafa ñëw nga xamné ne ne kii li mu ñëw ni amu ci leen lo xamné dañ ko forcer et c'est pas des calculs il est venu en tant que Sénégalais il est dans l'opposition c'est clair d'accord merci honorable député Farba ñu ngi koy gërëm bu baax baax may gërëm ñima andal équipe bi ma andal